li ci yéene kaay euh, li ci yéene kaay Abdoulaye Bopp lañ si àndal Abou maa ngi lay ziar jërëjëf euh, Seydina Omar Ba maa ngi lay fay tàmbale ko yéene kaay gi di Walf Quotidien Walf Quotidien lam ñu xëyee tey bokk na ci ni Ndakaaru yendoo démb tàngoon jër ñaxtu yeeg yëngu-yëngal euh, jëm ci tegum loxo Ousmane Sonko njiital Pastef ma nga garde à vue yéen cabinet Dakar lu ne la démb ay farando Ousmane Sonko ca Pastef wone nañu seen bopp ci talum pano yeeg joor xeer yaak jàmmarlook takk der yi bu weesoo capital bi di Dakar Saint-Louis itamit eh, Ziguinchor ak feneen ak feneen tàngoon jër eh, dañoo mujjee sax wóolu armée gi ngir mu taxaw askan wi eh, yéen cabinet sénéra jot na naa dankaafu Walf TV ak Sen TV mu ngi ci Walf Quotidien Sud Quotidien Sud Quotidien Dakar mi nga xamante ne kenn xàmmeetuloon Dakar capital geek na mu bindoo lépp bawoo ci coowal Sweet Beauté Ousmane Sonko ma fa demoon démb mujjee naa dem wuy ji Sonko dañ guufaanu ci yoon bi yóbbu ko ma nga garde à vue yéen cabinet ñaxtu yi nag ca la tàmbalee takarnaase ci mbeddu Ndakaaru gouverneur dafa mujjee woole wóolu armée gi njawri ngi ñu dénk wàllub kaaraange bi réew mi xam le ne daal fekk fitna bi dakkul yoon dina def liggéeyam préfet bu Dakar dem sax bay sas waa gendarmerie ñu dal ci taskatu xibaar yi jóor leen ay gaz lacrymogène mu ngi ci euh, Sud Quotidien l'enquête enquête euh, enquête bu yaatu la xëy euh, def ci mbirum Ousmane Sonko ñaxtu yi ci mbeddu Caru yéen a kaabri ñu xibaar ne Ousmane Sonko ma ñu teg loxo ma nga garde à vue waaye nag nangu toon na tontu ci laaj yi tukkee ci enquêteurs yi Antoine Diome jël na matuwaaya ca war ci watu kaaraange askan wi bokk na ci eh, fitna gi woon eh, démb yéen a cabinet préfet bu Dakar na mu waxee jëmee ci taskatu xibaar yi eh, daa mel ni dafa wax ba tàkk boppam ndax waxul warutoon a waxee noone noone la ko yéen a kaabi fësale l'observateur l'observateur am taxaw seetlu ak ni Dakar bindoo bokk na ci bëccëg gu tar lool jàmmaarloo gu tar lool diggante askan beeg takk der yi Ousmane Sonko moom euh, moytu na ndëgg sërëx gañu ne moom lañ ko lalaloon foofee ca corniche bu Ndakaaru euh, juge d'instruction bi moom am na jafe-jafe ndax euh, gannaaw recours ga nga xamante ne député yi jébal nañ ko conseil constitutionnel ngir ñaawlu nañu muree mbalaanu kiirlaayu Ousmane Sonko ba tax na dossier ba tàmbale naa am jaxasoo ca nañ ko waroon a tegee loxo moom Ousmane Sonko. le quotidien le quotidien Euh, démb la Sénégal dund àllarba gu tar lool àllarba gu yaatu yéene kabine lu bari xew na ci mujjee nañu sax duppee ko àllarba euh, décembre mercredi décembre Ousmane Sonko ca la dem euh, section de recherche ma nga garde à vue yéene kabine fitna gi nag ci capital bi Dakar na seet lool Auchan ak Total yëg nañ ko niki demb ndax askan wi leen song. Euh, dajji leen euh, mu ngi ci euh, le quotidien source a ne li xew ci ndakaaru pano ya ñu taal jéppét boutique yi ñuy dajje leen magasin Auchan ak station Total Euh, ñu gësam leen yéen cabinet Ousmane Sonko moom noppi la def ca garde à vue gàmmu ne nangutoon na tontu ci laaj yi tukkee ci enquêteurs yi yéen cabinet ndax euh, juge d'instruction du mujjee sax neenal la ñu toppee Ousmane Sonko ci mbirum viol euh, taxawu ci geneen wet ga ndax foo mu amaat beneen convocation gu ca jëm las moom jëm ci ëmët ñaxtu yooye nga xamante ne jol dina démb ci mbeddu Ndakaaru Pastef wane na boppam taxawu tembe ngir taxaw seen jiit di Ousmane Sonko. les échos ah, Sonko googuleek nañ ko nguufaanoo tax ah, teg ko loxo yóbbu ko ci section de recherche yéen cabinet waa GIG GIGN ñoom ñoo taxawu Ousmane Sonko ak garde corps ya mu àndaloon ba teg ko loxo yóbbu ko ci kanamu enquêteur ya bokk na ci tamit recours fukki député ak juróom-ñeent ya ñu def eh, jébal ko conseil constitutionnel. leneen itamit Serigne Habib Sy ibnu euh, Dabakh Malick euh, jot na sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu xoolaat boppam te xoolaat doxalin gi xam ne lu dul jeex amut euh, xam ne itamit ñoo faboon réew mi dénk ko Macky Sall amoon yaakaar lool ci moom ne bu ñu xamoon ne fii lay mujjee ak réew mi duñ ko ko dénk benn yoon noone la ko seriñ Habib si waxee ci xetu yéene kaay bi. réew mi réew mi yéene kaay des ci réew mek ak waxtu yi nga xam ñoo ne la ñu tegee loxo Ousmane Sonko la ca xew. sénéra mi dankafu yenn ci euh, télévision yi le mandat gis ne tegum loxo Ousmane Sonko yëf ya jaaduwul ba tax na dafa faf sax ruslu nañ ko nguufaano ba teg ko loxo yóbbu ko ca euh, garde à vue libération libération ne amagul liberté Ousmane Sonko ma nga garde à vue waaye nag noppi la def euh, ci kanam ak ci diggante mag ak enquêteurs yi gannaaw buñ ko laajee noo tudd Ousmane nangu ta wax turam nangu wax santam de xamle ne daal yomb trop muy tontu enquêteurs yi lañ koy euh, toppee la ñu bëgg a xam ci euh, tuuma ya tegu ci ndoddam euh, te tukkee ci Adji Sarr yéen cabinet Intifada jàmmarloo mu amoon démb ci mbeddu Ndakaaru 24 heures 24 heures ne bokk na ci nguur gi daa mel ni day ne ci tànk jeexal ndax nguur guy daanu am na lu tàmbalee feeñ ni nguur gi doxalee démb wane na ne daal bu doonoon garab guy waaj a daanu tàmbale naa feeñ ca bànqaas ya mu ngi ci 24 heures. direct news direct news Seydina Amar Ba la ñu gis démb ci mbeddu Ndakaaru du ay takk der du ay policier waaye nag ay nervi ay milice la ñu mujjee gis ñoo xamante ne xëy na ah, ci jamono ji kenn séentuwul leen ci mbeddu Ndakaaru démocratie bu réewum Sénégal mu ngi ci ah, tumuranke gu métti métti lii quotidien ah, film bi la xëy dëgtal askan wi Dakar na mu bindoo démocratie bi tàmbale salfaañewu noonee la ko yéen a bi xamle critique eh, critique mu ngi ñuy dëgtal Ousmane Sonko mujjee na daanu ci ndëgg sërëx ba ko gaay la la loon démb maga nga garde l'évidence euh, l'évidence ne dañoo salfañi ak ak yelleefu Ousmane Sonko benoo ne ñu ne nuus jàpp ko yóbbu ko ca garde à vue njiital Pastef moom euh, jotuta tontu enquêteur ya tribune euh, turbine waxtu fipp yi ngi nga xamante ne ñoo am démb ci Ndakaaru Ziguinchor ak Saint-Louis Diourbel ak Bignona foo romb gis safara sa jolli saxaar sa ubale pano ya ñu tàl leen jëppet galan yoon ya ak xeer ak weñ ak bant armée bi moom dañ ko mujjee sax wóolu ci renfort bu sukkandikoo ci gouverneur bu Dakar Vox Populi ne lu yéeme lu doy waar moo xew ci tegum loxo Ousmane Sonko capital geek ñaxtu yi fu ne la woon Ousmane Sonko fanaan bu guddeem bu njëkk ca loxoy takk der ya ma nga garde à vue le témoin euh, Sonko euh, moom la xëy fësal ne mooy ñetteelu euh, kàngamu politique ci ku jeeg politique goo xamante ne njiit réew Macky Sall mu ngi ci tànk teg ko loxo bu ñu fàttalikoo ñoo bokk 3 yi ndax 3 euh, mars 2013 euh, ca la njiitu réew Macky Sall teg loxo Karim Wade 3 mars ci atum 2017 euh, ca la teg loxo Khalifa Babacar Sall 3 mars 2021 gi ñu ne Ousmane Sonko fanaan guddeem bu njëkk ci loxoy takk der yi noonu la ko le témoin fësale le soleil njiitu réew Macky Sall ma nga ca xeexum coronavirus vaccin yi am na yeneen yu yegsi di vaccin Covax lañ ca jot amagum ëpp na ñetti téeméer téeméeri junni vaccin njiitu réew Macky Sall ne daañ ko yaatal ba ñëpp mun cee jot euh, stade bu 20 heures jotee ba toftal fukki minute ak juróom ca la ñu fas yéene football ñaari club yi la Liverpool ak Chelsea ca Prime League ñu war cee ràññee Sadio Mané ak Mendy. suñu lamb ah, suñu lamb ne Pikine ak Guédiawaye ñu ngi xaar. Euh, Balla Gaye euh, Guy gi ak Ama Boy Niang ñu ngi ci banc de touche di xaar euh, combat gi war a dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène ndax bu bu ñu weesoo 4 avril dina amaat yeneen i combat am mu ngi ci suñu lamb tënk la woon ci xetu yéen kaay incha allah dañ ko yaatalal askan wi ci xibaaru digg di la di la gërëm Abdoulaye Bopp mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant gërëm bu baax a baax Mouhamadou Xaali Baax mi fari woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba jëlaat kaddu gi delloowaat ko soxna bisu